amul lu muy nirul di leeri sëriñ laaj ko sëriñ be ca jaale leen sëriñ la amul lu muy nirul di leeri neen ngir ngir wan la rek suñu cofeel cofeel gii nga am ci jëmmi sëriñ saaliwu soob ñu ci ñu war cee ànd ak yow suñu giiru dund sëñ bi santaat nañu ci nii nga nu tëgge nii nga nu def sa bés bii suñu bésu boppa suñu yëfa ñun ñii ñoo ko moome moo tax suñu dëkk bii lañ koy woote fas yéene cee sant Serigne Saliou waa France waa états ñun ñu nekk ba France ak Europe fooy ne na nu ñëw lu jàppoon nu ba ko te ñëw sant Serigne bi sant la ko ci bësam bi. wa munzili sifaayi wa dawaayi hamdan li munzili daara wa daayi. bi ñu ngi sant bu baax a baax tey woo mboolem àddina ci lii nga xamante ni moom la ñu jib muy 17 avril. te ñi fi jaar ñépp leerale ko noo xam ni euh, kenn mënatu ci teg lu bari. alhamdulilahi alal kitaabi ma safii il musribil hitaabi sayidina di am lool ci yam gi ma yem ci woote barkeelu bii maa ngi ci sant yàlla bu baax di ci di bëgg lool nag. ki nu may tey lu ne ngi nii di sëriñ be. jërëjëfati sëriñ Saliou. I want everybody to say long life to Serigne Béthio Thioune. Long and healthy life to our beloved Serigne Béthio On April 17, 1946, Serigne Béthio met with Serigne it's a memorable day we will never forget because because of that of that day we Chantako know the benefit we can reap from the Magal of Tuba because because of that day we can reap the benefit from the Gamu of the Prophet Muhammad because of that day whoever sees or knows Sering Becho will go to heaven because of that day Whoever takes your bear from Serimbecho will receive Allah's satisfaction, Ongeram. Because of that day, we all live in this beautiful city of Madinah to Salam. Because of that day, we have wives. Because, because of that day, we have husbands. We have daughters. We have sons. Because of that day, we know how to benefit from Allah, the creator of the universe. Because of that day, whoever uh, take your bear from Serimbecho will live in the divine proximity we are inviting the whole world people from America, people from France, people from Spain, people from the whole world to come and witness with us this day of Thanksgiving. We will celebrate on April 17, 2017. This year, cows, camels, sheep, chickens, fruits, drinks, everything will be given away to show our gratefulness to this man who is the savior of all mankind, Serin Becho Chun. We will never cease giving thanks to Serin Becho because of what we have known, because of what we have received, because of that day, April 17, we Chantakon have to be thankful because all we know came from that day. It will happen this year here in Madinatu Salam and the whole world is invited, especially the diaspora, people from America. We are, you are invited. to come and witness with us this day of Thanksgiving. Long and healthy life to our beloved Serigne Béthio Thioune Serigne Béthio yaram Serigne Sall yam seen tànk tey lu ne ngi nii di Serigne be bokki taalibe yi waa Sénégal lay waxal waa àddina ñooy wax ak ñoom it mooy leen yëgal sama bis bi fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru avril ñu di ko wax 17 avril. billaay ni benn cër la fi woon mbaake yow billaay ni benn cër la fi woon la